yéen a ngi teewlu info 221. info 221 mbokk internet yi safo setaan info 221 dalee nag jàmm abonné leen ci sunu chaîne saa su ne ngeen amee xibaar ak i jàngat yu te wóor. Ziguinchor la ñu nemmeeku mooy tey ay manifestation yoo xam ni nit ñi daal di nañu génn tey gannaaw sax ba nga xamee ni suba rek moo tees ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey askanu Ziguinchor daal di nañu génn fa seeni ay jàmmaarloo ak takk der yooyu le waral ñu xëy tey barricade fépp ci kaw tali bi ak ay pono waaye itam ak ay bant garab yoo xam ni fas yéene nañ ko taal tey ni ki tey fas yéene jàmmarloo ak la nga xam ni moom moo di way takk der yi ginnaaw nag ba nga xamee ni Ousmane Sonko ñi ngi xalaat ndax tey duñ ko teg loxo am déet waral ñoom ñëpp askanu Ziguinchor ñu jug taxaw temm à ce que protéger Ousmane Sonko ba kenn du ko laal waaye itam kenn du ko tere bokk ca la nga xam ne moom moo di yooyu les élections ginnaaw loole nag gis nañ tey taxawaay bi nga xam ni patriote yooyu nekk ca jours am nañu ko ci seen leader ginnaaw ba nga xamee ni suba rek moo des wala tey moo des ci li nga xam ne moom moo di mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñëpp xam fan la nar a féetee ginnaaw ba ñu ko condamné ci dossier Mame mbay Niang ak lu jëm ci Prodac ñu ne ko ci six mois si ñëpp jàpp ni boobu sondage la boo xam ni état bu Sénégal daf koy def xool taxawaayu askan wi nan lay demee ngir prochain dossier ñu mën ci teg loxo le président Ousmane sunkoo waaye itam tas ci la nga xam ni moom moo di parti Pastef loolu nag yenn xalaat la ci ci patriotes yi nga xam ne am nañ ko waral tey seenu taxawaay ñu jàpp ni balaa kenn jug di laal Ousmane Sonko ñoom dañu war a taxaw jàmmaarloo wane seenu taxawaay ba kenn du am fitu dem kër Ousmane Sonko naan du koy jël waxuma laak di ko teg ay daan yoo xam ni daf koy tere participer ca la nga xam ni moom moo di élection présidentielle ñeel 2024 comme li leen ko waxee woon démb daañu leen toppal lépp loo xam ni dafa ñeel mbirum Ousmane Sonko fële ca jours moo xam manifestation la waaye moo xam itam ab arrestation comme rumeur yi nga xam ne ñu ngi ko doon dégg lépp lu fa mën a am daa ngeen ko am fii ci info 221 di leen wax ngeen abonné ci sunu chaîne saa su ne ngeen amay xibaar ak i jàngat yu wér te